asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan ñoo ngi fii ci barab bi nga xam ne njabootu sëriñ Mbàkke soxna ñoo ko taxawal ngir liggéeyale ko seen maam ndax kenn ku ne xam na ne sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy jur sëriñ Mbàkke soxna te ñu jóge léegi ci barabam Euh, ku mënoon alxuraan la te neexoon ko lool mu doon ko xam ne fu mu mosaan fanaan ku mos a dégg muy jàng alxuraan rek mag ñu bari dañu laxas jàngi alxuraan ngir man alxuraan gu mën a alxuraan moo tax benn doom bu góor rek la fi bàyyi muy sëriñ Mbàkke Soxna njabootam nag ñoo taxawal daara ji nga xam ne ñoo ko njukkale seen maam di ci jàngale alxuraan njabootu suñ Mbàkke Soxna ak seeru njaboot ñëpp di fi jànge daara ji nag ñu ngi ko sos 2001 lañ ko tàmbali woon liggéey bi mu ak 2004 ñu ubbi ko ci njiitul Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Khadir Mbacke ci 2004. boobu ba léegi nag njabootu Serigne Mbacke soxna ñoo fi jàng ñoo fi jàngale itam lim bu takku it jaar na fi ñi fi mokk alxuraan bari na lool ba jamono yi ñu toll lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ñi ngi fi juróom-ñaar fukki dong ñu ngi fiy jàng. li fi mokkal boobaak léegi ëpp na fanweer ci njiitul sëriñ maam Cheikh mi nga xam ne doomi sëriñ Abdou Sakkoor la nga xam ne moo jiitee jàngalikat wax fi nekk mu nangu cee sonn lool doon jàmbaar mu doon liggéey boo xam ne njaboot gi rek ñoo ko liggéeyal seen bopp kenn fekku leen ci muy liggéeyub lislaam di liggéeyub sëriñ Touba ndax sëriñ Touba dëkk bi bi mu koy sos daar rekk taxoon mu sos ko jàng ak jàngale kon képp koo xam ne nii yaa ngi yëngu ci loola xamal ne yaa ngi ci bëgg-bëggu Serigne Touba ak bëgg-bëggu mag ñi ba tax nag ñi ngi lancé appel képp koo xam ne lu baax ñor na la wala nga am yitte ci def lu baax ñi ngi lay tàllal suñu loxo ci liggéey bu rëy bii nga xam ne 2004 euh, ba léegi mi ñi ñi ngi koy taxawal di di ci yëngu suñ kam kàttan te mosuñ cee woo kenn léegi nag ñu bëgg képp koo xam ne nii lu baax yitteel na la nga ñëw jàppale ñu ci liggéey bii ba mën a àgg foo xam ne dana kawe njort ñu ngi ci woo ñëpp daal képp koo lu baax ñor na la rek ñu ngi la ci woo ci soññ ñaan njaboot gi ñu gën cee taxaw niñ ko sembe woon ba mu àgg fi mu àgg ñu gën cee jàpp ba mu gën a jëm kanam gën a dox bu baax a baax gën a génne ay résultats yu am solo ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp di ci woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu